mbokk yi sant leen gërëm leen ci seen àndax ñun ci rajo Rewmi FM tey ci émission gox bi nag ñu am ci yéen rek dalal ci ki nga xam ni moom moo di Limamou caw nekk conseiller fële ca commune bu Yoff Limamou ñu ngi lay sant di la gërëm ci ni ñu nangulee invitation bi ci rajo Rewmi FM ci émission gox bi. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. waaw euh, bu baax. Mhm. di euh, ci yéen vraiment. ci mhm. émission bi nga xamante ne ni. Mhm. moom ngeen ñu invité fii. Mhm. mais avant tout euh, permettez-moi ma nuyu ñi nga xamante ne ni vraiment. Mhm. mooy euh, la population de Yoff. Euh, jël ko teg ko ci loxo le premier magistrat de la commune. muy euh, le ministre de la santé et de l'action sociale et maire de la commune de Yoff monsieur Abdoulaye Diouf mu ma jël nuyoo bi teg ko ci loxoom mu wasaareel ma ko ci Yoff gépp wàcc ba ci le conseil municipal. alors limaamu tey coronavirus moom moo lëmbee euh, jamono askan wi euh, gis nañ ay ñombe yi muy def ci wàll wi ni mel coronavirus bee kii ay loraangeem tey naka nga gisee jàngoroy coronavirus bi. waaw euh, avant tout d'abord balaa ma si dugg damay euh, ñaanal. ñi nga xamante ne ni vraiment mbas mi ñàkk nañ ci seen bakkan yàlla na suuf woyof si seen kaw. suñu borom xare leen àjjana ñi mu dal aussi. ñu ñaana leen yàlla fëgg seen bopp ba fa ñu tëdd ñu jóge fa dellu seen njaboot. Mm-hmm. di wax nit ñi aussi ne ñu gën a respecter les mesures barrières. Mm-hmm. yi nga xamante ne ni moom lañu ñu technicien techniciens de la santé jox. Mm-hmm. waaw justement euh, respect mesures yooyu tey moom moo ñu yóbbee ak coronavirus bi li muy di gën a takkuwaan ah di dem ba tey nan nga jàngatee mbir mi. waaw mbir mi ni ma ko jàngee vraiment c'est très simple. parce que ñëpp xam nañ ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo ëmb santé bi fii nga xam ne ci suñu réew muy euh, non médecin ak suñu ay autorité vraiment def nañ li ñu war a def ba am si ay raaya ya nga xamante ne ni da leen di citer en exemple donc euh, pour man fi ñu toll à l'heure actuelle dafa am euh, benn bàyyeeku bu am bàyyeeku bi nag mën nañ ko xool ci angle yu bëri parce que tam affaire bi fi ñu toll nii responsabilité individuelle la nit bu ci ne rek yow yaay jël sa responsabilité nga jàpp ne. Mhm. yow yaay ki nga xam ne yaa fi war a jëlee mbas mi tey tey tey. Mhm. foofu laay invité à ce que nit yi. Mhm. ñu ñëw foofu noonu. waaw ñu toog suñu waxtaan ak suñu ay njaboot. waxtaan kenn ku ci ne rek koo yilif. yaakaar ne war nga ko mën a wax. lu tax message bi jàllul. waaw xam nga message bi jàllul. boo xoolee en quelque sorte am na naam gaa am na ñoo xam ne ñu ngi communiquer. Mhm. état mu ngi doon def sa communication. waaye dafay lajj de des fois itam. mun nga ko nangu non non je ne pense pas. Mhm. état ñu ngi def seen communication. communication bi soo sooxewul. non communication. Mhm. c'est que xam nga communication dafa am ñaari mbir. xam nga yow da ngay communiquer mais dafa am koo xamante ne moom mooy déglu aussi moom mooy capter donc ki nga xamante ne ni moom mooy déglu tey bu fekkee comme par exemple tey man manuma gëm ne sensibilisation tey. Sénégal kenn mënul wax tey koo fi woo boo ko laajee lan mooy coronavirus mu wax la lan mooy coronavirus lan mooy corona mu wax la ko lan mooy mesure barrière yi dina la ko wax mais le problème mooy lan moo tax nit yi duñ ko appliquer loolu moo jar a xool. lan moo tax duñ ko appliquer loolu laa ne la. Mhm. responsabilité individuelle la kenn ku ci nekk. Mhm. yow yaay am sa responsabilité. nga jóg taxaw ne man du ma nekk ki nga xamante ne nii man maay doon complice virus bi. pour circuler ko. parce que virus bi du doxal boppam. dañ koy dañ koy yóbbu. donc ñun kenn ku ci nekk rek yow yaay jàpp ne. mbir mi mu ngi ci yow. te yow yaa war a téye sa bopp respecter mesure barrières yi ba du dem si keneen. buñ ko defee noonu rek buñ amee idée yooyu suñu bopp yi. si Sénégal incha allah yàlla dinañu dimbali quoi. ah gis nañ ni euh, mbasum bi law bi moo tax ba gouvernement bi indi couvre-feu a. tënk ñaari région yi Dakar ak Thiès ndax yow ànd nga ci dogal boobu ba tey jàpp nañ ni sax euh, bu ñàkkul ni ni ki ëllëg le couvre-feu bi war a jeex app bi mais yow ndaxam tey ànd nga ñu yokkaat ko. Euh, man foofu xam nga Sénégal. Mhm. dafa di dëkk boo xam ne vraiment kenn ku ci nekk rek. Mhm. dafa am loo xam ne yàlla moom la jagleel moom la la jagleel. Mhm. tey jii ñëpp xam nañ ne matière de santé. suñu ay scientifique. vraiment ay référence lañ ay référence loolu kenn naatable ko. donc tey hmm. décision yi nga xamante ne ni aussi moom la son excellence le président de la république di jël. Hmm. président de la république yeewuwul rek mu dem di jël ay ay ay ay ay ay mesures comme ça. Hmm. donc day nekk en en relation ak ñi nga xam ne ñoom ñooy les scientifiques. ñoom ñoo koy jox. nekkat nangam ak nangam ak nangam muy jël mesure yooyu. donc man pour man gisuma lan moo war a mën a tax ma nekk ku contre ces mesures là. donc yooyu lu ci mën a am. lu baax la. lu baax la parce que pour man lu baax la parce que parce que lii tax ma ne lu baax la mhm. parce que bu dara amul woon duñ ko def c'est parce que am na benn maladie bu fi nekk am ñu koy saytu ñoo ñu koy saytu ñoom ñoo wax ne lii moo baax mhm. donc tey mënuñu lu dul plié wu mhm. si lii nga xamante ne nii ñoo loolu la mooy mooy mooy mesure yi ñu joxe ni ki ëllëg la war a jeex d'accord nga ngir ñu yokkaat ko ndax ban ko indee ba tey cas yi mi ngay gën di yokk est-ce que loolu indi na xam nga faj na xam nga dafa war a jeex mhm. wala dañ koy continuer mhm. wala dañ koy yokk wala day yéeg loolu scientifique yi mhm. ñoom ñooy wax am ci xalaat am nga ci xalaat yow donc scientifique yi ñoom ñooy xool parce que ñoom ñoo xam état lii bi fan la toll ban effet la couvre-feu bi def yooyu yëpp dañ koy évaluer ñoom xool bu fekkee dafa laaj ñu ne dañuy yéegal ñu yéegal bu fekkee dafa laaj wàcc aussi itam ñoom ñoo gën a placé pour wax ces mesures la sa sa sa xalaat itam day compter ndax citoyen nga itam. man sama xalaat mooy je de tout cœur. ndax li nga xamante ne moom la scientifique yi jël. waaw ok léegi gis nañ itam ne bañ ko euh, jëlee ba tey ñenn ñi nga xam ne ñu ngi jàpp ñu ngi ŋàññi li ni mel. naan euh, tey li nga xam ne moom moo jëm ci marché yi bërëb yi mais laata ñuy ñëw foofu yéen est-ce que seen commune euh, bi ngeen ne Abdoulaye Diouf Sarr moom mooy ministre de la santé. mooy maire itam sensibilisation ba ca war yéen yéen a ngi koy def ci commune ba. waaw euh, kontaan naa si laaj bi nga laaj nii vraiment. Mm-hmm. muy laaj boo xamante ne nii neex na ma trop. aussi euh, ma si profité vraiment félicité le maire de la commune de Yoff à travers son premier adjoint au maire muy monsieur Abdou Mbengue bi nga xamante ne nii mbas mi dugg na fi. Mm-hmm. Euh, donc très rapidement. Mm-hmm. ñun xam nañ ne naam yëfu Sénégal la. mais suñu kaw la dal. donc boo xoolee si biir conseil municipal bi li ñu njëkk def mooy. def nañ li nga xamante ne ni moom mooy virement de crédit. def nañ benn virement de crédit si presque cent soixante douze million bu njëkk ba première vague ba première nañ ko si li nga xamante ne ni moom mooy mbas mi. avant tout cela itam euh, comme ni nga ko waxee invité nañ. képp ka nga xamante ne ni euh, responsable la hmm. ci fa nga xam ne mooy suñu gox hmm. que ça soit muy euh, religieuse bi coutume ak euh, les comités de quartier comité de gestion quartier yi hmm. ak les OCB ak OCB yi ñëpp ñu sant tënk waxtaan bi ñu xoolee lii gën ne combat bii moo gën vraiment maire yi jël matuwaay yëpp vraiment teg ko ci loxo yi ak euh, daara yi nekk ci périmètre communal bi. Mhm. am na aussi quarante cinq boo xoolee quarante cinq euh, établissement mu nga fa. Mhm. que ça soit dix public la. Mhm. yeneen yi aussi nekk privé. donc yooyu yëpp kenn ku ci nekk ñu dem taxawu la jox la li nga xamante ne moom moo war ci yow. ba nga war a mën a xeex mbas mi. Mhm. loolu moom def nañ ko. taxawaay bi ci biir commune yi euh, ko xam yoox mhm. yoof mhm. xam ni dëkku diine la. ba nga xam ni itam est-ce que tey yéen a ngi dugg ci gox yeeg goxaan yi ci biir quartier yi di sensibiliser ni nga xam ni ñoom ñoo di askan wi ak yoof na mu bindoo itam. bien sûr moom laa la wax léegi nii. parce que dans un premier temps liñ njëkk a def ñoom dañ dugg sur les quartiers. quartier bu si nekk dañ fa installé benn comité tuddee que ko ay matuwaay comité mm-hmm. Covid. Mm-hmm. jox ko ay matuwaay les comité Covid la dafa composé tey dëkk boo dem imam bi. Hmm? Mm-hmm. les président de l'ASC. bu ma ne sax comité de gestion rek mën na dugal lépp. xam nga ak OCB ya fa nekk aussi ñëpp. nekk ñoo xamante ne ni ñoom ñoo taxaw pour xeex mbas mi ci quartier boobu. donc euh, noonu lañ ko defee. tey euh, gis nañ itam euh, jàngoro ji di law ba ñuy dugg ci deuxième vague mhm. bi ñoo coronavirus euh, ñàkkul rek fan yi nga xam ni génn nañ ko ki nga xam ni moom moo di premier adjoint maire bi itam mhm. amaloon na daje boo xam ne mhm. bu ñaax na ci sensibilité yi nekk ci biir commune bi yëpp ngir ñu yokkaat seen taxawaay ndax deuxième vague bi bu ñu sukkandikoo ci médecin bi mu di docteur Diop nee na cas yi mi ngay gën di bëri seen commune bi di yoof kon jonk taxaw jotaat na ngeen jugaat farluwaat takkuwaat. waaw euh, kontaanaat aussi si question bi nga posé xam nga tu bien di que ne dégg nga le premier adjoint ak euh, ki nga xam ne moom mooy le. médecin chef euh, mm-hmm. district bi. Mm-hmm. moom aussi ma koy félicité aussi di ko Massaw. docteur Diop docteur Diop Philippe Maguilène Senghor waaw ma koy félicité bu baax ak euh, CDS bi nekk foofu. comité de développement sanitaire bi. ak médecins yi ne foofu yëpp may euh, profiter si tribune bi vraiment di leen euh, delloo njukkal. Mhm. parce que seen taxawaay vraiment si mbas mi euh, rafet na. Mhm. te sonn nañ ci. Mhm. comme ni nga ko waxee ah le premier adjoint bu demee ba woote donc kooku comprendre na li nga xamante ne moom moo que dans premier temps biñ ne bëri ñu xam ne deuxième vague am na. am na tuuti bàyyeeku. mu ne nañ waat njaboot gi. donc woote boobu noonu c'était dans le seul but comme ni ñu defoon jóg xeex ak moom noonu la ñuy jóg defaat maire bi accompagner leen. Mhm. ñu wàccaat sur le terrain xam nga xeex ak li nga xamante ne ni moom mooy. mesure barrière mhm. ci lekkool yi dañuy ñëw rek ci tuuti ci lekkool yi tey gis nañ ni am na autorité sax yi nga xam ne ñu ngi ŋànk ne école yi dañ ko war a tëj diirub ñetti ay bés ñu ci trois semaines ngir jàngoro ji bañ a law ci euh, école yi ndax partagé nga sa gis-gis boobu. xam nga man. Mhm. man dama di nit koo xam ne vraiment dama respecté euh, nit ku ne xam nga yàlla ni mu tëralee àddina dafa jël nit ku ne. Mhm. am lu mu la jagleel. Mhm. xam nga tey ji dañu toll foo xamante ne nii si mba jamono mbas la. boo tolloo nag si jamono mbas dafa am kenn koo xam ne moom nga war a déglu moom mooy les scientifiques. ñooñu noonu lépp lu tukkee si ñoom ñoom ñu wax la ko. ngalawaay nañ suivre seen ay conseils. Mhm. parce que tam foofu li may jox nit ñi. Mhm. il faut ñu xaw a wàññi tuuti les critiques aussi ku nekk bëgg a soppeeku nekk scientifique wala quelque chose comme ça. Mhm. loolu war nañ ko moytu bu baax ki nga wax la santé la. Hmm? bu ko demee bay wax am na fu ko teg ñetti ci ay bés ñu tëj ko. xam nga wala école yi nekk ko mooy li ma lay wax. xam nga tey lépp loo xamante ne ni am na si mbas mi am na benn comité boo xamante ne ñoom ñoo gérer mbas mi. comité boobu lépp loo xamante ne ni war na ci. Mhm. ñoom dinañ ko jël. Mhm. wax ko sénégalais yi sénégalais yi dégg ko. Mhm. donc ñun suñuy scientifique ak comité national bi nga xam ne ñoom ñoo gérer affaire bi. ñun la ñuy déglu. lépp loo xamante ne ni wax nañ ko ne lii si mbas mi la jëm pour que buñ ko defee dinañu. yàlla mën nañu dimbali. ñun loolu la ñuy suivre te allah dinañ ko def. avec responsabilité. conseiller nga. Euh, yaa ngi dégg ni fan yi préfet bu Tëngéej jël na ne li nga xam ne moom moo jëm ci marché yi heure yi dañ koy wàcce mhm. ca diwaanu Thiaroye Pikine préfet bi itam def na li ni mel nee na 17h dañuy tëj marché yi 6h du matin ba 17h. Mhm. Euh, am na ñenn ñi nga xam ne sax ñu ngi ŋàññi li ni mel yow conseiller nga ndaxam waxtaanagu leen jël ay mesures ci wàllu marché yi wala fas yéene ngeen fa wàcc ngir amal ay sensibilisation ci marché yi. waaw euh, foofu nga wax aussi man nee naa la. parce que mënuma nekk si posture comme ne ndax d' accord nga wala d' accord parce que xam nga les préfets xam nga les ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk ñoom kenn du si yeewu rek di jour au lendemain rek jël benn mesure mesure bii ngay jël dañ la koy wax yow nga mettre ko en œuvre mm-hmm. donc ba tey rek scientifique yi ñoom ñooy wax mm-hmm. donc foofu damay euh, solliciter nit yi ñuy déglu ñi nga xam ne ñoom ñu seen ay autorité mm-hmm. que ça soit administrative que ça soit sanitaire. Mhm. nañ leen déglu. Mhm. quant à yoof yoof moom vraiment teel nañ ci jóg. parce que boo xoolee ñun suñu marché. Mhm. d' abord euh, dañuy féliciter la gendarmerie. mu fay jaar sax ngoon nit ñi respecter mesures barrières yi. parce que kenn du duggati ci marché bi noonu rek ñëw dugg nii après nga génnaat dem sa yoon. maanaam kenn du dugg te doo takk masque. da takk masque. donc loolu moom commencé nañ ko fa moom. donc muy euh, loo xam ne. nañ ko gën a dolli rek. Mhm. gën a dolli et puis déglu tam. Mhm. parce que affaire bi déglu la rek. Mhm. dil déglu scientifique yi. di moytu itam ci la bokk. waaw xam nga déglu. da ngay déglu di moytu. parce que tam fii ñu toll nii mooy li ma wax. parce que yow manuloo manuloo koo xam ne sa ngiiru dund bi nga juddoo ba léegi boo feebaree si moom ngay dem. moom nga jox confiance moom moo lay defal lépp. mu dem. nga dem ba am fanweer wala dix-huit ans wala vingt ans tey jii kooku mooy lay jàppale sa wàllu santé. Mhm. ba tey mbas am nga ne doo déglu kooku. Mhm. loolu moom j'invite euh, les populations. Mhm. à ce que ñu yeddaat seen xel yi. déglu ñi nga xamante ni ñoom ñooy kilifa. yi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk. li jëm ci mbas mi. mbokk yi yéen a ngi si seen émission gox bi ñu si dalal tey ki nga xam ne moom moo di Limamou Thiaw nekk conseil fële ca commune bu Yoff 88 la 628 84 84 wala 88 628 85 85 wala 88 628 86 86 mun ngeen dugg itam bokk ci waxtaan bi ñu dellusiwaat ci couvre-feu bi ndaw ñi conseiller nga. waaye itam ndaw nga gis nañ itam ba ñu jëlee wàll wi ni mel ci couvre-feu bi gis nañ ndaw ñu ci bari doon génn di ñaxtu li ni mel est-ce que itam jotul ndaw ñi itam changer posture. waaw euh, loolu nga wax moom vraiment dëgg la ndaw ñi jot na parce que man pour man ndaw bu toppa di di di daxante ay ay ay ay ay gendarme mhm. si si sa propre santé yow pour lu la aar pour man loolu dama koy dugal si wàllu inconscience la. Mhm. waaw parce que yow mii nga xam ne yow yaa nekk di daxante ak les policiers la. Mhm. xamoo ndax yow sax yow yaay porteur de virus bi. Mhm. donc yow ki nga xamante ne nii moom moo ñëw foofu taxaw muy la policier. ma di leen euh, tamit di leen. delloo njukkal aussi di leen jaajëfal. de passage parce que tam. ki nga xam ne dafa bàyyi njabootam ñoom dañ war a xam ne ñii ñëw noonu les policiers dañ am ay njaboot am ay responsabilité tout comme ñoom mhm. donc bu ñu bàyyee lépp ñoom loo xam ne daf leen empêcher pour ñu nelaw mhm. ñëw di taxaw pour law pour lan mhm. pour yow sa sécurité ak sa wér-gu-yaram kooku yow da nga leen war a sax jàppale moo gën nga di leen dawloo loolu moom je les invite à à ce plus de responsabilité delloo seen xel si yàlla. Mhm. et xalaat tam ne ñu seen ay nawle lañ. est-ce que boobaak léegi kii nga xam ni moom mu di ministre bi wala bokk moomeel bi Abdoulaye Diouf Sarr am na ay kàddu yi nga xam ni dénk na ko ndaw ñi ngir mu delloo si waat seen xel si wàllu wi. moom ci loolu la dëkk. Mhm. moom ci loolu la dëkk boo xoolee monsieur le ministre moom ci loolu la dëkk moom dafay mu ngi wax ak xale yi di leen rencontrer à chaque fois. moom loolu lay véhiculer boo dégloo see message sax lépp. Mhm. moom léppam si mbas mi lay wax nañ gën a respecter les mesures barrières. waaw tamit ci wàllu couvre-feu bi. Mhm. boo xoolee temps yële bi muy xa bi muy door jóg. Mhm. vraiment xawoon na am ay yëngatu ay daaxante. bien sûr mais mhm. fan yii nii constaté nañ que ne am na dal. surtout Ayof. parce que Ayof vraiment damay féliciter aussi euh, ñi nga xam ne ñooy kilifa dëkk bi parce que. très bi affaire bi amee dañ def ay annonce si jàkka yi wax ñëpp nañ téye seen ay doom biñ ko waxee vraiment gis nañ ne nit ñi téye nañ seen ay doom. Mhm. vingt une balaa jot sax doo dootoo gis yoof benn picc mu dox. Mhm. mais dañu dañu gis ci mbas mi ñi nga xam ne ñoom ñoo di religieux yi guide religieux yi. Mhm. ñu ngi ciy joué ab pàcc bu am solo sëñ taxa gis nañ itam sëriñ Babacar man Mansour keroog rek. ak digle maanaam taxawaay gi ñu ci am. naka nga ko gisee yow. taxawaay bi mu si am du dara lu dul lu ko. parce que tam aussi lu ñu mën a wax il faut Sénégal ñu xam ne ñun suñu culture politique. religieuse yooyu. dañ ci am pàcce bu rëy. Mm-hmm. parce que nit ku ne rek ak fooy dégg nit ku ne ak fii nga xam ne fa lay dégg. Mm-hmm. te suñu religieuse yooyu. Mm-hmm. nit bu fekkee comme par exemple da nga ni tarixa bii laa bokk. wala tarixa beneen laa bokk. tarixa du lu dul yoon boo xamante ne daf lay teg ci yoon. parce que xam nga tey man pour man ma gis euh, ki nga xamante ne mooy sama wasila. ma gis ka mu takka masque rek doy na ma si sensibilisation. parce que quelque chose. donc seen takk masque bi ñuy takk masque. Mhm. ah ni ñu respecter les mesures rek vraiment ça montre que ni. Mhm. ñu ngi def liggéey bu mucc ayib. Mhm. waaw. tey euh, gis nañ itam euh, kon léegi ci wàllu waaw dañ ko war a téye gën a euh, respecter mesure barrières yi ngir ñu jeexalee entre parenthèses boobu. waaw mesure barrières yi nañ ko respecter et puis ñi nga xamante ne ñoom ñooy porteur de voix yi. ñu gën wax. gën a yeddaat njaboot gi. parce que am na si ñoo xam ne vraiment dañ xamul. dañ xamul nañ leen gën a yeddaat gën di privilégier li nga xam ne moom mooy waxtaan mm-hmm. di waxtaan ak nit ñi di leen conscientiser mm-hmm. et puis gën a wàcc affaire yi à la base mm-hmm. parce que am na solo parce que bu ñu ba ne comme ay cas communautaire moo ñuy jaaxal fi mu nekk nii donc loolu communauté moom moo ko mën a xeex te kii di communauté wax ñii nekk à la base ñëpp les gox ASC OCB mhm. keneen ak keneen jeunes yi mhm. ñëpp association yi ñu impliqué leen ci li nga xamante ne ni moom mooy xeex bi voté ngeen seen budget vendredi dix-huit décembre mhm. euh, lu war a toll ci ñaar si ay milliards est-ce que xalaat ngeen ci deuxième euh, vague bi dugalaat si benn koppar entamé waat xeex bi parce que bien sûr bien sûr parce que xam nga dañ toll foo xamante ne ni budget voté nañ budget le dix-huit waaw incha voté nañ ko maa ngi féliciter le conseil municipal si vote bi. à l'unanimité à l'unanimité mmh. parce que loolu du gan. Mm-hmm. c'est pas une première. Mm-hmm. donc loolu aussi ñu ngi ñaan yàlla. feex si kanam xamal jàppal ne lépp lu si mën a am rek ñun dañuy taxaw suñu population. Mm-hmm. lépp loo xam ne dafa am ci mbas mi. par rapport a fi mu yem dañuy ñaan yàlla nag mu yem fi. ba lépp li ñu suñu budget ñu def ko. mais aussi bu fekkee mbas mi daf fi nekk. am na li nga xamante ne ni vraiment contrainte lay doon. Mhm. donc sûrement mu am loo xamante ne ni dañ koy def si wàllu santé. Mhm. bien vrai que bien vrai que jël nañ ay matuwaay yu am solo ay matuwaay yu am solo. Mhm. parce que barka démb rek lañ doon def suñu plan plan de comment dirais-je stratégie boo xam ne. dañuy xool na lañ mën a doolele. li nga xamante ne moom mooy suñu système sanitaire. bu commune bi muy que ça soit Euh, à travers euh, le centre de santé Philippe Maguilène Senghor mhm. les postes de santé aussi ñu seet nan lañ leen di doolele ak ñi nga xam ne ñoom ñooy les OCB mhm. nan lañ leen di doolele aussi itam yàlla def loolu lépp vraiment ñu teel préparé mhm. barki démb lañ ci doon def benn réunion pour cette année là maanaam teg ngeen ay stratégie teg nañ ay te si biir stratégie am na ñaari construction yu si am war nañ construire un poste de santé Nord Foire. Mhm. def ko aussi à Ouest Foire. Mhm. donc loolu muy vraiment ay. centraliser mbir mi waaw vraiment muy ay jéego yoo xamante ne ni. Mhm. la commune jël na ko. vraiment ñu koy saluer bu baax a baax. 88 le 628 84 84 wala 88 628 85 85 wala 88 628 86 86 dugg ci commune bu Yoff. waaw depuis 2014 la Abdoulaye Diouf Sarr nekk fa maire tey lan lañ mën a. tegandi loo xam ne mën nañ ko jàpp ci biir commune bi. waaw euh, di kontaan vraiment si question bi nga xamante ne ni moom nga moom nga laaj. Mhm. dëgg la sax parce que avant Abdoulaye Diouf Sarr nekk maire d' abord dafa am loo xam ne moom moo jiitu woon euh, Abdoulaye Diouf Sarr dafa wër yoof gépp ne leen dafa soxlaa dëkk bi bi mu wëree yoof gépp ne dafa soxlaa dëkk bi dafa amoon loo xam ne moom la yor mu tudd un programme donc Abdoulaye Diouf Sarr dañ ko fal à travers un programme programme communal moom la présenté dëkk bi bu ngeen ma falee dinaa def lii bu ngeen ma falee dinaa def lii bu ngeen falee dinaa def lii mhm. mat na waroom laa lay wax jukkil ñu si ñu waaw ci wàllum parce que mhm. santé bi nga wax nii rek lenn rek laa lay jox comme exemple mhm. tey jii bu ñu ba ne Philippe Maguilène ñu ne comme par exemple moom mooy la mu bokk centre référence si Sénégal non mais nekkul centre référence nii parce que Abdoulaye lii ko def centre de référence c'est parce que plateau technique dafa changé waaw dafa am qualité am ay jumtuwaay aussi paj mi ci wàllu set geex loolu lépp donc tey jii loolu moo tax ñu def ko centre de référence mmh. loolu bokkoon na si li nga xamante ne ni Abdoulaye Diouf Sarr defoon na ko ci li nga xam ne moom mooy programme mmh. boo jëlee aussi boo génnee Philippe Senghor dem ci les postes de santé de Yoff am na si yoo xamante ne yëpp dañ ko réfectionné mmh. barke démb la ñu jël benn rajo may ko Euh, poste de santé bu APEXI 1 donc muy ay avancé boo xam ne ay logement ICP yëpp defaraat ko ba mu mucc ay taxawu leen si ay comprimé chaque année dañuy jël une de onze millions jox ko ki nga xamante ne moom mooy euh, euh, le centre Philippe Maguilène Senghor mhm. pour ay médicaments donc loolu mhm. ku amul vision si wàllu santé mhm. vraiment doo ko def ok ci wàllum njàng meeg njàngale mi parce que dañuy gis ni itam yoof ak école yi yéen yéen jéego ngeen ci def. xam nga tey boo jëlee li nga xamante ne moom mooy éducation. Mhm. éducation si compétence transférée yi la bokk. Mhm. waaw éducation boo xoolee saa yu ñëw dañuy defar ñu ñoo yor ñun ñooy defar l'ensemble de établissements mhm. publics ñoo koy defar réfectionné ko ba mu nekk ba mu normal. waaw dañ koy defar ba mu baax. pour xale yi mën a jàng si ay anam yoo xamante nii. vraiment yenu na ay yenu na maanaa mhm. am na aussi boo jëlee si wàllu suñu ay élèves ak ñi nga xam ne ay étudiants lañ si commune bi à chaque fois dañuy maye ay bourses dañuy maye ay bourses yoo xamante ne nii dafay dimbali xale yi ñu jot ñii seen lii loxo jotul seen ginnaaw mu di leen dimbali que ça soit étudiant que ça soit ñii nekk secondaire. Mhm. ñëpp chaque année nga gis ñu organiser may leen li nga xamante ne moom mooy ay bourse mhm. waaw aussi si Ablaye Diouf Sarr aussi euh, si moom lañ jànge li nga xamante ne ni mën nañ wax ne moom mooy ibbi tey jàng tey chaque année lancement lañ fa defoon rek non loolu lancement boobu nag mhm. loolu du du loo xam ne dañ ko def rek bàyyi ko noonu dafa dem ba nekk aada si ñun dafa dem ba nekk aada si ñun parce que chaque année ñu def ko ibbi tey jox ko école yëpp waaw ba bii mujje yaakaar naa def nañ ko. Mhm. aussi am na aussi benn école boo xamante ne dafa nekkoon Yoff muy l' kenn Kenjiro muy école boo xam ne vraiment bii maire njëkkee dem si école bi di visité dafa am un jour mu ñëw si école bi bi mu ñëwee fekk fay abri provisoire mhm. bi mu génnee mu ne école bi dootuma fi dëggaat sama tànk te bëggatuma abri provisoire am si école bi école boobu tey jii boo koy xool boo duggee yoof c' est l'une des meilleures écoles yi nga xamante ne moom moo dàq jub dama naan même sax école yi dàq si ndakaaru tey xam nga dañ ko jël avec un financement de cent vingt milliards cent euh, je me pardon vingt millions mm-hmm. donc loolu muy un financement total de la mairie la commune moom moo financé lépp jël école bi defar ko ba mu baax ibbi ko jox ko ñi nga xamante ne nii mm-hmm. ñoom ñooy euh, ñoom ñooy lii mm-hmm. yi donc loolu. da nga jàpp ni jéego am na ci wàllum éducation. bu baax a baax a baax a baax. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw bu baax a baax a baax. ok waaw ci wàllum infrastructure yi fan yi itam ñu ngi leen di gis ndaxam ay élection mooy waaj a jege ngeen di teg ay pavage ci yenn koñ yi wane ni yéen a ngi taxaw est-ce que xaar di ngeen xaar ba heure bi soog a teg. ta pavage yi xam nga nit ñi dañ tàmm. boo waxee ñu ne élection yaa ngi ñëw diw mu ngi defar man man sama di même bu fekkee nit daf ñuy nax. comme man dama jàpp ne nit ki daf ñuy nax di ñu naxe ay réalisation bëgg nañ <laughs> xam nga nax bii si gën a bon mooy nit ki di la nax te deful dara mais même bu fekkee nit ki da nga ne dalay nax di réaliser di def ay réalisation loolu baax na c'est quelque chose de positif donc pavage yooyu. Mhm. loolu. ci yoof yëpp la wala. yoof yëpp yoof yëpp la pavage boobu vraiment dafa am loo xamante ne nii parce que fa la waroon a njëkki maire yi dafa am lu am solo loo xamante ne ni ñaari mbir yoo xam ne moom moo ko ŋànk. mooy bi si jëkk mooy mooy budget budget propre budget mm -hmm. beneen bi si toppa mooy li ñu tuddee la coopération décentralisée donc coopération décentralisée boobu noonu. Mm -hmm. travers moom euh, si ngay gisee ay PACASEN ay euh, Promoville. Mm xam nga. même assainissement du compétence transférée mais aussi à travers la coopération décentralisée yooyu yëpp mën nga def ay partenariats yoo xamante ne nii vraiment mën la si jàppale ba yow nga réaliser ko mhm. waaw gis nii itam ba ngeen fi dalal autopont bi naam taxawu leen ko sax waaye bañ koy taxaw gis nañ fi ak la ngeen fa woote yëpp comme ay nit ñu ñëw fa euh, te yéen seen jëwriñ moom moo nekk ministre de la santé rassemblement lañ fa doon daw non mhm. foofu am na déggoo déggoo kon ni nga déggee baaxul parce que amul benn rassemblement boo xamante ne ni la commune de Yoff moom moo ko jël woote ko foofu. bari woon na nit non donc ñi fa ñëw. Mhm. dañu ñëw dal fekk si commune bi. mais c'est pas la population de Yoff yow si ku xam Ablaye Diouf Sarr en terme de mobilisation hmm. wala bu yëngu am na noo xam ne mu yëngu parce que man mii le jour j'étais pas là ma fa woon donc ce qui veut dire que am na benn côté si Yoff boo xam ne vraiment te nañ seen bopp si mobilisation boobu parce que ils son conscients que danger bi nga xam ne moom moo war a am hmm. le ministre woowul kenn ci mobilisation mais loo mën mënti wax itam Yoff des na ay jéego yi nga xam ni war nañ ko fa mën a dolli Yoff parce que dëkk moom hmm. lii wolof njaay di wax ne njàmbaas yàqul sër daf koy yokk donc loo def def def def am na lu def. lu des am na lu des mais tey mhm. mais tey ak lu mën a am aussi nañ reconnaître que ne ñun suñu commune euh, mu ngi nekk commune d'arrondissement en 1996 maire bu ne jaar na fi. Mhm. maire bu ne le premier maire de sa s'appelle euh, tonton Seydina Issa mhm. Laye Ndiaye donc moom aussi ñu ngi koy féliciter di ko remercier di ko delloo njukkal parce que vraiment c'est une référence. Mm-hmm. am na le maire Oumou Khayri Gueye Seck am na aussi le grand maire Mamadou Diop jaar na fa ñoom ñëpp jaar nañ fa kenn ku ne def nga li nga mën mais si kàntanu yàlla man je reste convaincu que ne. Mm-hmm. dama ne de l'indépendance laay wax à nos jours ah dama ne Abdoulaye Diouf Sarr reste et restera. le meilleur maire de la commune de Yoff dans l'histoire ah parce que ci gouvernement la bokk ñu koy jox lépp muy def amoon na ay maire yu fi newoon bokk ci gouvernement il n'est pas Abdoulaye Diouf Sarr du moom mooy premier maire boo xamante ne nii dafa bokk ci gouvernement donc tey Abdoulaye Diouf Sarr ci histoire yoof boo xoolee li ñu am lépp wala nga dajale képp koo xamante ne nii nekk na Yoff lii Yoff masa am yëpp à un temps record Abdoulaye Diouf Sarr triplé na la loolu si benn mandat donc man dama naan mooy le maire maire du Sénégal. Mhm. waaw mais est-ce est-ce que gisoo ni itam euh, foofu ca diwaanu Yoff am na ñoo xam ne itam jóg nañ di wax ni euh, li nga xam ni moom moo jëm mairie ba. am na agent yoo nga xam ni dañ leen ameel xaalis ñenn ñi ba jàpp nañ juróom benn wala juróom ñaari weer yi nga xam ni toog nañ ko te fay ñu leen xaalis euh, mën nañ jàpp ni ki nga xam ni moom moo di moom Guèye euh, est-ce que jàppoo leen ni kooku dafa ñëw pour sonal euh, Abdoulaye yu Sarr moo tax ngeen koy bëgg a randal. non non non pense moo indil la benn éclaircissement. acca si euh, Amel. daf may permettre ma expliquer. Mhm. xam nga tey. cool yi bëri xam nga tey. Mhm. la commune de Yoff damay féliciter le maire Wade damay dellu di ko féliciter parce que waxoon naa ko xam nga sur les cinq cent cinquante sept collectivités locales mhm. du Sénégal dama ne encore une fois seule la commune de Yoff moom mooy employé six cent agents boo génnee ville de Dakar ñooñu noonu mhm. tey commune bu ñëwee dafay am li nga xamante ne moom mooy priorité am danaan man lii mooy sama priorité mais ñun Abdoulaye Diouf Sarr bi mu ñëwee depuis 2014 man sama priorité xam nga lan la mu ne les salaires maire yi ba Yoff balaa ñuy def dara dañuy fay salaire ba pare maa la ko wax fii yow journaliste nga man nga def sa ay propre recherche maire Yoff kenn masu fa fayeku le dix kenn masu fa fayeku le dix seen salaire bi mujjee jot muy bu décembre ñu ngi ko jot le vingt trois kon maire yi mënul amel nit. kon dàq nga tees boobu non non loolu moom wax bu yàqu la wala show la show laa ko tuddee. <laughs> waxu politique la rek. pour que ñu dégg la mais loolu moom mënul nekk te aussi ba pare sax nit mhm. yow nooy amele ay nit sept mois ñu nekk fii te kenn déggu leen wax day ànd ak cohérence yéenawul maanaam mhm. mais nee na dafa ñëwoon di def li nga xam ne moom mooy jëm activité sensibilisation ngeen ñu koy bundu xatal yow journaliste nga defal say investigation nga xool ndax gis nga fu mu joxee masque laaj naa la wala alcogel laaj naa la yow joxewul dara séddalewul tus dara joxew waaw donc moom ñëw na def lii mu jublu woon wax naay waxam dem na yoonam et voilà loolu man foofu laa si yem. Mhm. waaw ndax da jàpp ni Mamadou Gueye il dérange quoi moo tax ngeen. koy non kooku mënul déranger parce que ñun. soo mhm. sommes des démocrates si démocratie nekk. Euh, ou que chacun si ay choix am wala si wax lii mu bëgg donc ñun ay démocrates lañ <laughs> ngay seetaan parce du moom mooy première personne boo xamante ne nii bëggoon na yoof ñun bi ñuy bëgg a yoof mais attends dañ fekkoon ñenn nekk fa aussi bi ñuy xëccoo yoof y plus de sept listes ñëpp ku ne danga nga bëggoon yoof et pourtant dañ leen gagné ku mu neex ñëwul rek nga samp sa dënd mais teg ko ci dans les règles de l'art loolu moom yaakaar naa. da nga da nga jàpp ni Yoff kooku mënuñu déranger. Yoff Abdoulaye Diouf Sarr moom dina nekkaat candidat. kooku mënuñu kan Yoff Abdoulaye Diouf Sarr bien sûr. bu newul candidat kan mooy candidat lu muy def. candidat ah, yow mënoo jiite foofu. non non Abdoulaye mooy suñu meer ba tey itam mooy suñu candidat. Mhm. te bilan bi. li nga est-ce que am ngeen. bilan bi alhamdulilah rabil alamin parce que tam yow am na loo xamante ne nii lu ne fàng kenn du ko jiix am na yoo ne jarul sax ñu la koy wax ah yow arrière rek 6 ans si ginnaaw jaar nga yoof nga xool yoofu léegi nga xam ne am na changement ah Ablaye Diouf Sarr dafa mën naa ko tudde l'homme des défis. mais équipe la quand même mairie équipe la. équipe la équipe bu macha allah que ça soit administration bi muy euh, le bureau municipal muy le conseil municipal bi nga xamante ne nii mooy organe délibérante te ma bokk fa. Mhm. donc muy équipe boo xam ne vraiment. ñu ngi def li nga xamante ne mooy seen liggéey ba mu macha allah. Mm. Abdoulaye Diouf Sarr gis nga bi muy ñëw yoof dafa fekk ay doléances yoo xamante ne ni am na sax ñu doon wax bi muy wax en 2014 bi muy wax waa yoof bés boo leen ma falee di ngeen am quai de pêche bés boo leen ma falee di ngeen am stade bés boo leen ma falee di ngeen am lycée. Mm-hmm. ba mu koy wax am na ñoo xam ne dañ doon wax ne waxu politique la kii day réeré. tey jii rêve boobu noonu <laughs> moo nekk réalité donc kooku mënuñu ko xoolee autrement c'est grace à lui que nos rêves léegi nekk réalité donc kooku vraiment Yoff gépp dañuy jàppoo dooleel ko ah lépp loo xamante ne nii. Mhm. bëggale ko dañ koy jàppale si loolu noonu. Mhm. parce que tam la commune de Yoff pour développer une commune euh, lii ci ëpp lay defar dëkk ba du ne sa dëkk ba dañ koy wuti ji. donc kay wuti ji dañ koy ñaanal yàlla vraiment muy gën di uti. di gën di développer li nga xam ne moom mooy suñu commune. aussi itam di si remercier ñi mu fi bàyyi parce que itam bu fekkee dangay dem uti bàyyi sa ginnaaw ñoo xamante ne ni dañ yaafus wala dañuy yàq vraiment sa utin du neex parce que da ngay dem di gestu sa ginnaaw donc tey ñi mu fi bàyyi te le premier adjoint au maire muy monsieur Abdou Mbengue jiite leen. vraiment dañ leen di féliciter di leen encourager Abdoulaye Diouf Sarr dafa am euh, nu mu tudd staff bu baax la am waaw. kenn ku ci ne muy le maire le premier adjoint. Mhm. le deuxième adjoint troisième quatrième ah ñoom ñëpp vraiment kenn ku ci nekk yaa ngi def li nga xamante ne ni moo war ba tey jii yoof mel ni mu war a mel. mais ci wàllum chantier yi. Mhm. dañu gis itam ni am na stade boo xam ne ñu ngi koy coowal chaque année di nga ko dégg. Mhm. Euh, waa yoof amuñu fun fubal. stade bi parewul stade bi lan nga ñu ko mën a wax tey conseiller nga euh, lan nga ñu mën a wax ci stade ndax mën nga dalal xelu ndaw ñi nga xam ni ñoo nekk ca diwaanu yow ndaw ñi ak ñi ëpp ci ndaw ñi ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk si sport bi vraiment euh, le maire euh, loolu bokk na si li nga xam ne force am la parce que moom lépp lu muy def rek daf ciy impliqué ñamu concerné tey jii moom il est en parfaite collaboration ak ñi nga xam ne ñoom ñooy les acteurs de la du football de Yoff <laughs> muy la renaissance sportive de Yoff comme tout comme la renaissance basket ñëpp ñu ngi xam booy xool à chaque fois ñu ngi sur le ci terrain bi. Mhm. di xool avancement bi. tout à l'heure rek man bi may ñëw fii ci terrain bi laa jóge mais nga gis ne gars yi ñu ngi finir di raax di defar que mu ngi avancé bu baax daal. Mhm. ñii di gas préparer assainissement bi. donc am nañ ci yaakaar. Mhm. am nañ ci yaakaar ñaan yàlla aussi parce que suñu mëbét mooy. def le tout ba fexe ba nawetaan yi di ñëw incha allah fekk suñu stade pare nag. Mhm. ngeen mën a def ngeen loolu xëy na mën na dalal xelu ndaw bi ci li nga jàpp. non non non sax bien sûr incha allah bu soobee yàlla moom am nañ ci yaakaar bu wér parce que liggéey boo koy xool travail technique bi en général moom mooy indi problème te boo xoolee fii. le travail technique yàgg na de. non stade bi yàgg na c'est normal projet état la ay day dox noonu lay doxee projet bu mag bu ni faaw mu ay rëq parce que doo xëy itam rek parce que itam lu ñu bëgg a bëgg a stade ñaanuñu yàlla aussi am stade boo xam ne da ngay ñëw rek defal ñu benn taf yëngal lal ko noonu yàkkamti mu pare après léegi dix ans boo waree am dix ans ñëw am cinq ans ñu toppaat di wut stade stade bu mucc ayib la ñuy defal waaw. Mm-hmm. am ay normes FIFA ñu nangu ko mu nekk troisième stade bu dakaar donc tey stade boobu dañuy ñaan yàlla jël suñu temps ñu defaral ñu ko yàlla na pare. balaa nawetaan jii di ñëw. Mhm. ñu football si suñu nawetaan. Mhm. waaw. mbokk yéen a ngi ci émission euh, gox bi 88 la 628 84 84 wala 88 628 85 85 wala 88 628 86 86 yéen itam ngeen dugg bokk ci waxtaan bi alors ba tey ci commune Yoff gis nañ itam euh, xëy na léegi kàddu la yi ngeen xam ne yéen a ngi koy fësal. Euh, bu ñuy wax émergence mun da ngeen jàpp ni léegi Yoff euh, émergé na bu baax ci ayu Macky Sall. Yoff waaw émergé na moom si ayu Macky Sall moom vraiment parce que lu luñ mën a wax moom man dama naan la commune de Yoff fait parti communes yi nga xam ne ñoo gën a émerger si département de Dakar waaw émerger nag buñ koy wax du parce que dañ ko wax wala dañ ko lii mais. de par euh, comment dirais de par euh, ces réalisations yi nga xam ne am na fi. Mhm. waaw tey lépp loo xamante ne yoof daf ko daan jéggaani yàlla def na le maire indil nañu ko tey am nañ ko. Mhm. donc tey commune bi dafa émerger gis nga yëpp yéen yéen a gisal seen bopp pavage yeex lépp mu ngi en vraiment yoof boo fa duggee tu as l'impression que ne civil nga nekk. Mhm. grâce à la vision d'un nom donc nit kooku. vraiment donc lan moo war a nekk léegi chantier yi nga xam ni moom la ñu mën a def tey ci commune yoof yi nga xam ni tey ñu ci bari ñu ngi koy xaar. xam nga boo xoolee tey lépp lu si mel ni am na si yoo xam ne vraiment maire bëgg nañu fa bëgg nañu am ko. xam nga tey lu si mel ni. Hmm. boo xoolee lu si mel ni maison des jeunes aussi ça pose problème lu si mel ni la maison des jeunes maison des femmes. Hmm. aussi ak lu ñu mën a wax suñu dëkk culture bi ak leneen am na. ay jàng alxuraan nangam war nañ fa am un daara moderne boo xamante ne nii commune bi war na ko mën a am xam nga aussi tamit war nañ am loo xamante ne nii fa lañuy ñuy euh, defee suñuy lii comme genre fourrière. Mhm. boo xamante ne tey mën nañ jël suñu yenn bagages yi. Mhm. dëkk bi xat na trop boo ko jëlee foo ko def. yooyu yëpp aussi. ay est am ngeen espace la doy ba nga xam ni mën ngeen ko fa def. tey loolu itam problème la. amaguñ ko carrément officiellement mais. am nañ yaakaar ne dinañ ko am bu soobee yàlla. Mhm. waaw am na chantier bu mag bi nga xam ne mu ngi nekk ci rond yoof euh, Yoff euh, tey boo tourné sa droite ñu ngi gis ay immeubles yi nga xam ne yéen a koy tabax foofu mel ni ay supermarché kon yéen a ngi bëgg a dekkil xar kanam yi nga xam ne moo jëm ci commune bu Yoff. waaw loolu moom mooy li nga xamante ne ni moom la ñu le maire digoon. le maire de la commune de Yoff moom la ñu digoon à travers son programme ne ñu je faire de Yoff dinaa changer dinaa ko def la capital écologique di Sénégal te mu ngi ci yoon wi. da jàpp ni yéen a ngi ci. yii mu ngi si yoon wi mu ngi si macha allah. Mhm. waaw conseil incha allah d'ici peu. Mhm. dinañ gis beneen xar kanam Yoff mhm. donc Yoff Yoff changé na visage. bu baax a baax a baax ñu gis itam benn débat bi nga xam ne ñu ngi koy euh, euh, wax saa su ne mu jëm ci suppression ville Euh, conseiller nga ci commune bu yoof mhm. am nga ci xalaat mhm. ndax tey suppression ville eh, ànd nga ci en tant que conseiller euh, maire euh, ànd nga ci ci ñu supprimer ville yi waaw maa lay sant di la gërëm waat xam nga tey si suppression ville yooyu coow li bëri na waaw coow li bëri na parce que ni ko olof Ndiaye waxee ne coow li bëri coow li bu bëree ñi coow li si teen bi ñi amul baat ñoo ko waral <laughs> xam nga tey boo ñëwee rek tëb tëb tëb nga ne nit yi mm-hmm. dañuy supprimer Dakar am na ñoo xam ne sax loolu la ñuy utiliser dañ naan dañuy supprimer Dakar mais Dakar kenn mënu ko supprimer dañuy supp kenn mënu ko supprimer exemple bi ma lay jox mu ngi mel ni comme yow tey euh, ñu ne yaa ngi tudde limaamu xam nga tey ma tudde limaamu ñu oowe ma George terewul ma nekk limaamu terewul sama personnalité bi ma war a am ma am ko sama dignité ma am ko mbir mi foofu nga koy analyser nit ñi dañ toppa si turu supprimer bi sans pour autant xalaat njariñ yi nga xam ne ah, moom moo ci nekk loolu la wax de ministre nee na ville yi léegi amatuñ benn njëriñ léegi non parce que xam nga lan moo tax xam nga tey dañ nekk si dëkk boo xam ne ñu ngi wax ay acte trois de la décentralisation amoon na acte un am acte deux acte deux bi sax amul doole am acte trois mhm. donc bu amee acte trois de la décentralisation ñu jël ay nit confier leen li nga xamante ne ni moom mooy wàllum décentralisation ñu xool nan lañ ko war a mën a defee le président de la république dafa am politique sur la décentralisation donc faaw ñu xool nii mu gëne am nay njariñ acte bi ñëw na ak ay jafe ngeen bëgg changé waat loo gis si loo gis si àddina mhm. acte trois jafe-jafe yi ñuy waxaa yooyu yëpp ñu ngi si phase un bu acte trois de la décentralisation mais am na phase deux ba léegi sumb ñu non dafa duggagul bu ñu évaluer li nga xam ne moom mooy phase un ak trois de la war a dugg ci phase deux vraiment nañ leen ngal la nañ leen bàyyi ñu def ko nii mu gën a daal. Mhm. waaw. suppression yi ndax yow ànd nga ci kon. suppression virgule yi waaw changer les tours bu fekkee kay moom moo gën. mais je suis tout à fait d' accord. ah ci naka parce que. parce que maanaam ne à Dakar amati. mais attends ñun ñun ñun commune lañ nous sommes une commune de Yoff. Mhm. te en général lii gars yi di reprocher l'État mais ça se passe <laughs> les villes parce que da ngay gis nit ku ne boo bokkul si boo àndul ak président rek politiquement dañ lay liquider liquider wala doo am si affaire yi wala nangam ak nangam mais ñun tey exemple tey jii boo jëlee Ayof ah boo jëlee Ayof ñun lan la ñu ville defal ville lan. laaj naa la ko. ville defaluñu dara. ville defaluñu dara. <laughs> wooy le problème bokkuñu ci Dakar wala donc il faut gars yi bàyyi mbir bu amee ñu koy politiser di ko jël di ko yóbbu foo xamante ne benn niveau boo xam ne yeggul foofu ay experts ñi seen xam-xam màcc ñoom ñooy yëkkati seen kàddu nga ne politique la. am na ay experts yoo xam ne c'est des experts politiques ay experts lañ mais des politiciens am na am na xam nga. Mhm. mais y a am na ay experts aussi yu wax ne lii lu baax la est-ce que yow dégg nga boobu ba léegi benn maire bu contesté li laaj naa la ko est dégg nga ko yow yaay journaliste bi yaa ma gën a xam xam nga parce que d'une part am na ay maire yoo xamante ne li sa biir neew ma lépp dàngam lépp mais man lépp lu si mën a am rek man damay wax ne nañu oote mu waxtaan ak nit ñi. Mhm. na doon dans le cadre. est-ce du ministre bi foofu la war a njëkkee itam mhm. échanger non ministre bi waxul kenn dara dañ jël ay waxam rek interpréter ko ni mu leen neexee ministre bi deful lu dul interpréter lii nga xam ne moom la loi bi wax. mooy le cote général des collectivités locales loolu rek la wax mais où est le problème nga jël ko politiser yokk ku nekk politiciens yi ñoo war a bàyyi victimisation bi ak jaxase les populations. da ngay xool ne jaxase daf si am. non daf si am parce que tam boo ñëwee man nga fekk ma man mi juddoo dakaar màggee fi nga ñëw ne ma dañuy supprimer Dakar man li may njëkk xalaat mooy kii kooku xanaa daf ñuy fonto xam nga. Hmm. alors que ça ne se passe comme ça. nañ xool njariñ lii ci am. njariñ li lan mbir bu amee danga naan lii mooy njariñ li wala nag man mën naa la jox rek ñaari exemple yu ndaw. tey xam nga barka démb dégg nañ fii ñu ne euh, commune Plateau. dafa doon xëccoo ak ville de Dakar fi nga xamante ne moom mooy marché Sandaga. et pourtant boo xoolee ñoom ñaar ñëpp dañ ci am droit parce que yoon interdit wu leen pour ñu lii foofu parce que tam seen ay compétence la nga dem euh, le cas de Pikine. ville de Pikine mais les les villes dañ am compétence su fekk bayal mais aménager ko def fa armère cimetière mais bi ñëwee def ko mbaaw waa commune bu mbaaw dañ bañ mais loolu pourquoi parce que il faut mu am luy àtte loolu il faut mu am loo xam ne daf leen di départager parce que manoo am ay commune de plein exercice yem ak ñoom ay compétence da si am ay mbir yoo xam ne faw ñu defaraat ko faaw ñu xoolaat ko saytuwaat ko defaraat ko waaw. donc li ci parce que man mhm. parce que man man li may wax nii sama xalaat man sama avis personnel la parce que man je vois mal comme tey exemple Yoff suñu ay jeunes yoof si seen ay jafe-jafe bokk na si place yoo xam ne fa la ñuy defee seen ay euh, réception xam nga épanouir jeunes yi nangam ak nangam mais tu voyais benn foyer des jeunes bu ne foofu mais <laughs> commune Yoff mënu si dara. pour nit organiser fa dara il faut nga dem ba dakaar ñu autoriser la ko pour nga man ko fa def man loolu sama xalaat la man pour man loolu noonu dañ ko war a régler parce que ñu ne ñu nekk à Yoff centre socioculturel bi nekk Yoff mais vraiment pour nga am si autorisation il faut nga dem ba ville de Dakar. Mhm. mais loolu. donc daal réforme yi ànd nga si ñu. war nañ ko waaye lépp mu am ci waxtaan. lépp dans le cadre ñu waxtaan ci rek xool la ci gën. Mhm. liy njariñ. Mhm. pour askan bi. kenn acte acte trois bi nu mu mel ci yéen ndax ngëneel la. ci de la décentralisation. Mhm. lu baax la. ci yéen seen commune am na ñuy wax ni ñoom baaxul parce que mënuñu fay ay salaire bu ñu ci fayee salaire ci lay yam képp. dama lu baax la. acte de la décentralisation lu baax la parce que lépp loo fa gis fii si àddina. il mu am ñu ne baax na si ñoom am ñu ne baaxul waaw. parce que acte trois de la décentralisation moom. ngëneel la si yéen vrai bu baax la. Mm-hmm. waaw ñun ñun moom ñu ngi siy sant yàlla. waaw wax ñun ci ci ngëneel gi ci acte trois ci seen commune. ñun acte trois de la décentralisation moo ñu permettre tey ñu nekk commune. à plein exercice. waaw commune de plein exercice mën nañu wax ne Abdoulaye Diouf Sarr moom mooy premier maire de de la commune de Yoff maire de la commune de Yoff la commune en tant que tel. Mm-hmm. parce que avant ay commune mais maire de la commune. Mhm. de plein exercice Abdoulaye Diouf Sarr moom moo ko fi njëkk doon. Mhm. donc euh, may nañu permettre na commune bi vraiment am na doole. am nañ doole yu si bëri jëlal nañ ko suñu bopp. Mhm. xam nga bu jëkkoon tey pour nga am benn autorisation wala nangam benn panneau boo xam ne dañ ko def yoof tey jii taxi yi ville moo ko daan jël wala quelque chose comme ça. parce que tey nekk commune de plein exercice permettre nañu tam aussi yu si bëri yoo xam ne dañ ñu ko daan xañ mais ñu xeexal ko suñu bopp ba di ko fay. comme tey boo jëlee lu mel ni éclairage public ville mooy gérer éclairage publique bi si 19 commune yi Dakar yëpp mais dañ xool benn instant ne ñun suñu commune bokkoon na si communes yi gën a lëndëm si si département de Dakar. tey fu ngeen toll. tey boo ko xoolee Yoff mooy la commune la plus éclairée du département de Dakar xam nga lam moo tax. Mhm. parce que le maire dafa dem uti benn prestater prestataire boo xam ne dañ koy fay vingt cinq millions par mais mu defar fépp mu leer lañ joxe ay numéro téléphone yoo xam ne foo gis lampe bu fay nga woote mais mu ñëw très rapidement ñu changé ko defar ko ak lampadaire solaire yi nga xamante ne nii vraiment plus de deux cent cinquante installé nañ ko foofu nga xam ne ci commune bi la nekk donc loolu commune de plein exercice ak sañ-sañ moo ñu ko may donc acte trois de la décentralisation. am ngëneel la ci yéen daal parce que est-ce que jàppoon ni itam ci état ngeen nekk ci yéen la gën a yombee. parce que ñi koy wax tudd ñu ci bari dañ naan. xam nga dama la wax fii léegi lu am solo mooy dafa am loo xamante ne ni dafa am solo si maire yi mooy la coopération décentralisée. Mhm. da ngeen ci wuti ba muy maire. Mhm. dafa am ay jumtuwaay yu fi nekk am nuñ ciy demee muy coopération décentralisation boobu maire bu ne maire faluñu la pour nga ñëw toog wala sa ay bët wala nangamax nangam. Mhm. budget communes yi amul doole noonu. mënoo si def lu bëri donc da ngay seeti def ay intercommun intercommunal seeti ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo yor mbiri muy la PACASEN ay Promoville mécanique mécanisme yi nga xam ne état teg na ko état du Sénégal. Mhm. mais nga dem saytu si parce que dara si àddina interdiw la ko parce que yoon moo la ko may. boo demee si article dix neuf code général des collectivités locales. Mhm. daf lay wax ne comme tey communes yi am nañ possibilité di man di outil def ay partenariat mhm. waxtaan ni ñu jàppale leen ba loolu réaliser wu mhm. un maire da nga war a réalise dem di génn di wutali ji sa dëkk di indi mhm. mais doo toog rek di xaar boo toogee di xaar dafay metti da ndax jàpp ni buñ doyloo rek ci acte trois bi faaw ñu dem génn outil ji ay koppar itam mun ko dugal seen dëkk ndax da ngeen jàpp ni recettes yi ngeen di am rek doyul non mënul doy sax recettes yi ñuy am rek mënul doy de xam nga tey yaa ko wax léegi boo jëlee avec un budget de mën nga si defar dama lay jox exemple boo jëlee deux milliards nga defar benn stade léegi looy fay say agent léegi looy fay éclairage looy looy fay éclairage public bi système d' informatisation bi ñu am ah mu ñuy uti mu ñuy coûter plus de cinquante millions par par par par an léegi loolu foo koy faye bu fekkee da nga jël budget bi yëpp def ko ci benn benn benn réal benn réalisation donc man dama naan yàlla main de Dieu sawaay bu ñu naxante nañu waxante dëgg nous avons le maire maire du Sénégal. wallahi azim ci sa gis-gis. non moo am du si gis-gis de. Mhm. de par ses mhm. ak sur la bonne gouvernance am na solo maanaam kenn euh, euh, kenn ji ñu leen dara. lépp lépp lépp si transparence ngeen ko parce xam nga commune. Mhm. communes les communes dañ am ñoo xamante ne nii ay kuréel yu am si réew mi yoo xam ne ñoo leen di saytu. mooy la cour des comptes bul fàtte ba siin weesu nii génn nañ ci dix dix lu ma une dizaine de communes yoo xam ne dañ ne si matière en matière de transparence mais communes yi dañ set wecc Yoff si la bokk. ndam la ci yéen. aussi itam loolu ndam la lu rëy aussi Pakasen. Mhm. Pakasen mooy. Euh, programme bi nga xam ne. état teg na ko. waaw état teg na ko pour mu jàppale pour mu jàppale les collectivités locales non bi du ñëw rek bokk. Mhm. dafa am ay critères. bien sûr dafa am ay critères. Mhm. remplir yi. sinon bon duñ ci am. Mhm. donc yi mooy transparence si la ah respect yi si la yooyu yëpp si la donc tey mooy wane ne vraiment suñu administration ak li nga xamante ne moom mooy suñu commune. tegu na si loxo yu wóor maanaam loolu. dañ koy dugal ci dans le cadre de la bonne gouvernance locale mhm. donc tey ñu ngi foofu émission bi presque daanaka jeex na ñu bàyyi la nga tàggatoo rek suñu mbokk auditeurs yi waaw euh, d'abord ma leen di nuyu yéen ñëpp di leen sant di leen euh, remercier vraiment parce que tam aussi permettre ngeen ñu may ñu cadre bu ni mel pour ñu mën a waxtaan ak suñu population donc aussi ma gis fii mu nekk euh, rajo boo xam ne vraiment ay jeunes rek ñoo fi nekk mhm. donc ñëpp xam ne benn dëkk si àddina mënul euh, émerger. Mhm. sans pour autant jeunes yi am ay initiative euh, ñii si kaw jàppale leen ba ñu réussir li nga xamante ne moom moo fi nekk. Mhm. donc tey ma gis fi ay ndaw vraiment def lii donc duñ def lu dul encourager leen. Mhm. ñaanal leen yàlla aussi tey jii mu dem nekk rajo boo xam ne dañuy dem ba fi ñuy dégg ay. Euh, yeneen rajo mhm. RFI et autres mhm. dégg ko fa jërëjëf donc ñu ngi nuyu ñëpp mhm. may sant le maire des maires muy euh, monsieur Abdoulaye Diouf Sarr di remercier son adjoint au maire aussi euh, ñëpp ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo ŋànk euh, li mu yor du ma nag te jëluma une personne spéciale pour man muy le chef de cabinet du maire Euh, nekk aussi le coordonnateur de la COJER de Yoff mhm. muy monsieur Babacar Mbeng am na solo vraiment muy euh, nit koo xamante ne nii un jeune boo xamante ne nii Yoff nee nañ ko waaw quoi. jërëjëf waaw nekk jeune bu am solo. ñu ngi lay sant macha allah dañ koy ñaan yàlla. ñu ngi lay sant di la gërëm. waaw euh, di leen jox rek mbokk yi dig daje incha allahu rabbi beneen dimanche ak beneen invité fii ci émission gox bi incha allahu rabbi jërëjëf merci